passer un jour ensemble, je veux plus que ça. Et tout le week tu t'en es xarit yi ci ànd bi ak teewlu seen chaîne mbégte lay nekk saa su ne ñu dellu siwaat ci fi nga xamante ne moom mooy seen rendez-vous seen émission si près si loin tey ma amat ci lool mbégte ak contenté dalal fi koo xamante ne c'est un jeune bu yëngu lool ci wàllu culture culture urbaine c'est un rappeur il est membre du groupe Kër gi nekk aussi membre fondateur du mouvement citoyen Y'en a marre ce soir vous l'avez compris j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ki nga xamante ne mooy Kilifeu Kilifeu di Landing Mbissane Seck mais ñu gën ko xam ci ki nga xamante ne moom mooy Kilifeu vous avez l'habitude de voir li nga xamante ne moom mooy ses interventions ci plateau yi li nga xamante ne aussi moom mooy gis-gisam ci réseaux sociaux yi cette fois si ñu nar a dellu siwaat en dehors de l'artiste de la personne du papa dinañ dellu siwaat aussi ci expérience am jaar-jaar bi depuis Kaolack ba fi nga xamante ne moom mooy Sénégal Dakar ak aussi fi nga xamante ne jaar nañ fa ci àdduna ngir yóbbu li nga xamante ne moom mooy labelu Sénégal mais surtout expérience douloureuse bi nga xamante ne dundu na ko en 2021 ba caabi féete ko ginnaaw tey loolu yëpp dinañ ko waxtaane ci seen numéro bu gees d'ailleurs duma def lu dul bàyyi leen ngeen suivre li nga xamante ne moom mooy arrivé fii ci ce beau cadre de l'hôtel Colonia bu ko defee ñu daal di tambal li nga xamante ne moom mooy laaj yeeg tontu yi allez c'est parti s'amuser comme moi mais quand je me réveille c'est ton cœur qui m'appelle yeah, yeah, yeah. je veux un mec comme toi Yeah, yeah, yeah. Je veux un comme toi. Peut-être qu'il est trop tôt, que je suis dans le brouillard. Peut-être qu'on s'est vu pour la dernière fois. Eh. Peut-être que je ne suis pas claire, mais je sais très bien que c'est toi. Peut-être que je me voile la face parfois. Les mecs comme toi veulent le défi, comme moi jusqu'au lever du jour, les garder pour toujours. Les mecs comme toi aiment jërëjëf mbokk yi xarit yi ni ma leen ko waxee woon sànq à l'entame de mes propos tey dama mbégte lool ak contenté euh, di fi dalal ki ñuy dippee Landing Mbissane Seck ñu gën ko xam si kilifa il est rappeur il est membre du groupe Kër gi il est aussi cofondateur euh, du mouvement citoyen Y'en a tey nag ni ma leen ko waxee vous connaissez le personnage mais cette fois-ci vous allez découvrir la personne waaye balaa ñuy tàmbalee laaj yeeg tontu yi dama koy bàyyi mu nuy ak téléspectateurs yu ñuy seetaan di soog a tàmbalee nag li nga xamante ne moom mooy suñu waxtaan kilifa maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Adja <laughs> ngi lay fay. <laughs> <laughs> comme ni ko sa mag yeeg sa waa kër yi di woowee. Uh-huh. ñu ngi lay fay ñu ngi fay euh, les téléspectateurs de la 7TV. di leen waxtal leen jàmm ci waxtaanu Adja ak kilifa waaw ñaari doomu Saalum yi. waaw ñaari balaa ñuy tàmbali xam nga dañu dugg ci li nga xamante ne moom mooy nouvel an musulman. ñu baalwaat ñëpp ak baal ñëpp euh, àq euh, bàyyi la yow aussi certainement am nga ay vœux ci at bu yees bi nga xamante ne. atum musulman la mm. euh, peut-être par rapport ak situation politique beeg yooyu ban message ngay lancé d'abord bala ñuy tàmbali waaw ñu ngi baalu ak sénégalais yëpp mm. jullit yi comme euh, ñi dul jullit aussi te di baal ak képp ki nga xamante ni tooñ nga ñu te ñu yëg ko wala ñu ñàkk ko yëg ñu lay jéggal di ñaan yàlla mi nga xamante ni dara tawu ko yàlla mi nga xamante ni depuis que le monde est monde moo téye àddunaan bi donc yàlla boobu nga xam moo téye Sénégal ba saa su ne liñ naan moo tax bal tàkku fi euh, dëgg la naam am na ci mais yàlla suñu borom ci kattanam moo téye dëkk bi ba bal tàkku fi dara yënguwul bon quand je dara yënguwul il y des événements yu fi kii nii mais waroon na mën a gën a ñaaw mais yàlla def na ki sutura mm-hmm. donc comme euh, li ñuy wax rek am réew moom dafa am koo xamante ni moom la ci yàlla di jiital mu neex ña ca réew ma mu naqadi ña ca réew ma mu neex ñi ëpp ci réew mi comme mu naqadi tamit ñi gën a néew ci réew mi yàlla jël ki nga xamante ni parmi les 17 million moom la ci jiital te je pense que ni bu la yàlla jiitalee daf la jiital pour plusieurs raisons daf la jiital pour nga am yërmande ci ñi ngay jiite daf la jiital pour nga am considération ci ñi ngay jiite daf la jiital aussi pour nga am vraiment surtout ab dégg-dégg ci ñi ngay jiite di ñaan yàlla moomu nga xamante ni tey jii nii kooku mu jiital te nga xamante ni moom la jox ñaari caabi mm-hmm. muy caabi jàmm mm-hmm. ak caabi fitna yàlla def ci xelam ak xolam mu exploiter wala mu utiliser la clé de la paix muy le président de la république yal na yàlla def ci xelam ak xolam ñaari caabi yooyu mu yor muy bu jàmm ak bu fitna mu utiliser bu jàmm bi Sénégal mën a am jàmm lii daal moom mooy sama souhait bi gën a gën a gën a gën a rëy à part yàlla may ñëpp dooley poche. may ñu nawet bu barkeel. amiin amiin yaa rabbi alors euh, tout à l'heure dinañ si ñëw si vos relations avec euh, l'actuel chef de l'État Macky Sall parce que vous vous avez la chance de connaître trois présidents de la République mais loolu ci ci biir waxtaan bi dinañ si ñëw mais mhm. balaa loolu dañ koy tàmbali ak Kaolack euh, nga judd en 1979 au mois de juin plus précisément le 13 juin fi nga xamante ne moom mooy Kaolack Kasnack lan nga ñu mun a wax un tout petit peu. ci say début ci sa ci sa enfance foofu si si Kasnack. waaye euh, je suis très fier euh, de mon enfance je suis très aussi fier et ravi de raconter un peu de mon enfance. Mm -hmm. alors je suis pas je suis pas né avec euh, une cuillère d'or je suis euh, je suis euh, je suis j'appartiens à une à une grande famille mon père était polygame mm -hmm. donc euh, on était on était plusieurs dans une maison mais une grande maison comme on le sait à Kaolack alors euh, mais quand même euh, il avait réussi ba nga fa xam ni njabootam yëpp déggoo nañ daawuñu xiiroo daawuñu ŋaayoo daawuñu reyante ni ko sunu papa yi defee woon ñoom ñoom amoon nañ génie boobu même si bu nekkee ménage polygame la dinañu fexe ba ñëpp mhm. nekk ci jàmm walla wallaay lazim dinañ fexe ba soxna yi déggoo mhm. fexe ba njaboot yi déggoo man tey jii nii de passage maa ngi nuyu di bégee Pascal bi nga xamante ni maag moom ñoo bokk benn mois de naissance il est né le 3 juin je suis né le 13 juin muy sa frère muy sama grand frère Pascal di ki nga xamante ni moom laa gën a bëgg que ñi ma bokkal ndey ak baay tu vois un peu. Mm-hmm. donc euh, cela am na lu muy indiqué. tellement que des fois man ba pare yàlla def ma koo xamante ni ay cousin cousine ak yooyu xaw ma ko man ñoo bokk man su ñi may présenté sax dama naan ñoo bokk c'est un frère. ñi ma ñi ñi naan ay cousin cousine man je dis que c'est un frère ou c'est une sœur. d'accord man newuma ci yooyu. dama jàpp ni man buñ dëkkee dëkk bu yàgg sax. dama naan ñoo bokk quand je te présente c'est un frère ou c'est une sœur d'accord alors loolu lépp aussi c'est une très bonne éducation boo xamante ni jot nañ ko ci sunu baay ak sunu ndey quelque temps ñu nekk aussi des des enfants yoo xamante ni xaw ma nu ñu koy waxee mais dañu te yàlla dafa teel a def ci ñun esprit de de de révolte ba pare def ci ñun esprit de de de de de ñàkk jëriñu entrepreneuriat euh, tamit di ma dund ak sama papa bëriwul parce que bi may bi muy décédé maa ngi am 13 ans. mais bi nga perdre sa waajur góor qu'est-ce que vous avez senti parce que vous étiez très jeune. waaye di ñu njëkk a sentir mooy un abandon on a été vraiment automatiquement euh, senti un abandon parce que quand je dis ça mooy que ni par exemple Ablaye Diak bi nga tudd léegi yàlla na yàlla xare ko aljana mm-hmm. il a commencé à fréquenter la maison yàgg na bi mu ñëwee di def ci politique donc vraiment i a ñu recommandé ko ne ko demal nga ànd ak Bamba Seck c'est quelqu'un boo xamante ni il maîtrise la région am na jàmb ak ñëpp dugg day dugg duggante na ak ñëpp quoi donc moom tamit il est venu ñu nekk des amis de vrais amis ki topp ci ki topp ci man déjà il porte son nom mm-hmm. moom la ko sam papa tuddee alors ñu nekk vraiment de bons amis mu jëloon même chez moi mu nekkoon le QG le quartier général de Ablaye Diack c'est là-bas qu'il recevait ses militants foofu lañ doon defee seen lépp daal lépp tout tout tout tout tout euh, il il euh, mu ngi doon génn sama kër plus tôt une heure du matin plus tard trois heures du matin à longueur de journée il pouvait rester là-bas recevoir les militants organiser des réunions des rencontres ba heure ou trois heures du matin mu génn dem hôtel hôtel Dior Euh, tëdd ba mhm. dix heures il revient encore donc noonu lañ doon àndee euh, en en 93 bi paa bi gaañoo ci huitième jour bi on a euh, ci lañ gëj a gis Ablaye Diak ci lañ gëj a gis ñi fa doon ñëw ñëpp vraiment mu nekk vraiment un abandon noonu laa ko mën a comprendre xaw ma loolu la xaw ma mais daal en tout cas automatiquement. vous êtes senti seul après le huitième jour. waaw on ne voyait plus personne. mais comme suma yaay dafa nekkoon une fédératrice euh, moom nit ñi di commencé waat di fa ñëw ndax jëmmam fekk na aussi sama deuxième pa femme papa moom déménagé na euh, ba ñëw à Dakar donc euh, voilà ñu continuer noonu di dund ci kër gi. Mhm. en 94 ci la njëkk a dugg ci wàllum. culture urbaine. ci la ñu créé notre groupe de danse. de d' accord ah, alors diggante danse bi ak say frères d' euh, diggante balay danse beeg yooyu nga ñàkk sa waajur. Mhm. dama lay dégg aussi nga koy wax say intervention cette fois si il fallait que nga takk sa ndigg. waaw. sa premier liggéey naka nga ko amee. waaw <laughs> sama premier liggéey euh, mooy bi paa gaañoo. alors euh, on avait que la maman bi nga xamante ni vraiment non seulement elle devait gérer la dépense quotidienne mais aussi elle devait prendre soin de tes, de ses enfants ñiy jàng nekk privé mu war a lijjanti lu leen fayal elle était veuve liggéeyul elle avait que la pension alimentaire bi ñu doon jël chaque trois mois c'était vraiment insuffisante pour pouvoir joindre les deux bouts beneen bi xaw ma heureusement laay wax année bi ci topp 2014 euh, 94 euh, 94 sama grand frère bu ñu naan Ousmane Madamel bi nga xamante ni moo waroon a jël la relève décédé tamit en pleine mer donc là euh, il me restait que il il me restait il me grand frère mais kooku aussi dafa dëddu woon maanaam mu ngi woon Touba doon ànd ak Khadim Gueye ñuy nekk ci affaire jàng yeeg yooyu on le voyait que par tabaski euh, donc man maa ci topp avec mon jeune âge j'avais que des grandes sœurs et trois petits frères donc il fallait vraiment faire face à ça may jàngi mère bi di fay affaire yi di compliqué des fois ñu dàq ma ndax dafa ñàkk lu mu fayee ñu dàq ma en pleine cour des fois devoir dañ doon bàyyi ba devoir ñu dàq ma parce que fayu ma donc euh, vraiment mu nekk mu nekk période bu doy waar ci sama jaar-jaar mais période bu ma gën a neex parce que c'est une période quand même qui m'a forgé ba benn instant ma ne lii jëmul kër je connais ma maman su ma ko nee damay bàyyi jàng pour vraiment dem uti lu ma def elle allait refuser. du ko nangu du ko nangu. Mm-hmm. Mm-hmm. donc dama daan def su ma jàngi jee ba wàcc par exemple 14 heures ma daw dem salin su ma demee salin ut fa journée journalier ñu jël ma. liggéey si xorom si. si xorom si bu ñu ma jëlee ma liggéey ba 22 heures ñu fay ma 3000 wala 3500. su ma ñëwee mu jaaxle bi nga wàccee ba tey foo nekk ma am soob explique ko jàppal bàyyi ne ko non après dama am fu ma demoon demoon dama demoon syndicat dee ma doon ut mango yooyu jaay ko d'ailleurs sax lii laa ci am quoi parce que ñemewu ma ko wax maa ngi dem ci fréquenter usine mhm. xam nga mu ne ma lu mel noonu boo koy def nag ma tàkku parce que dëkk bi wóorul dugg na fii génn fii wax ma ne ko ah d'accord ma ne ko mais est-ce que bàyyi nga ma saa yu ma wàccee ma dem syndicat pour mën a kii quoi mu ne ma day yàq sa jàng ma ne ko non dinaa mën a boole ñaari fexe fexe fexe ba convaincre ko ma ne ko parce que instant bi nii il faut que ma ma taxawu la parce que je me rappelle des fois mu dëgër mu yónni ma ne ma demal ci sa tante diw nga ne ko mu may ma ceeb bu ma sóor mm-hmm. un jour ce qui m'a ce qui m'a vraiment li ma jooyloo métti ma ma ne laa malgré que je suis très jeune mais il faut il faudra que je serre la ceinture ñëw ci benn xaritam boo xamante ni bokk la sax ci moom bi ma ñëwee ne ko tante diw sama yaay nee na ndax doo ko jàppale ci yeggaleegu ma sax mu ne ma aw ma ceeb ceeb bi jeex na mën nañ ñaan trop. loolu la tontu. wallahi lazim et cela m'a fait sama m'a pleure j'ai pleuré ma génn bi ma bi ma bi ma génnee ma toog tuuti euh, avant may yegg ci moom parce que je ma dis ndax dama koy wax li ma fi jëlee exactement wala ndax damay rafetal mu nekk koo xamante ni daf ñu yar toujours ci rafetal mhm. ma xam ni su ma ko nee lii la ma tontu sax du tax mu bako parce que nit la boo xamante ni da koy tiim di ko def li nga koy def ci la lay gën a jàpp ma ne bon su ma ko nettalee mën na yàq xolam mën na bàyyi ma rafetal comme loolu la ñu jàngal bi ma ñëwee ba ci moom mu ne ma yow da yàgg ma ne ko noon c'est vrai dama jàddoon fekk ma ma ma am fu ma jàdd voilà ma am fu ma jàdd li jënti fa ba am téeméer jënd si ñaari kilo ceeb ñëw jox ko ko ne ko nee na ceebam day waaj a jeex moo tax ñaari kilo yi rek la fa dese quoi mm-hmm. pour rafetal pour bañ yàq mbokk bañ yàq àndandoo mais li lay wan ni yàlla du nit yàlla dimbali na ma ba ma dund ba kooku tabaar fakal la macha allah euh, maa ngi koy taxawu ci lu bëree bëri parce que man tam je me dis que ni tayu ko woon voilà quoi. du ma du toppaate parce que je suis vraiment le fils de ma mère. alors day tax ma wanaale la image bi. waaw. ki kan la. kii c'est kii kii c'est la kii c'est la femme la plus précieuse pour man kii ginnaaw yàlla lu ma doon moo ko def ci man kii mënuma wax ci moom depuis sa mort euh, je m'évite même pour regarder sa photo euh, parce que voilà quoi kii kii mooy suma àdduna kii moo def suma àdduna moo def li ma doon. Mm-hmm. Euh, ci jigéen yombul une éducation boo xamante ni musuñu dóor te pourtant il nous a bien éduqués il a elle a réussi euh, vraiment euh, elle a réussi son éducation ci ñun te dóoruñu lépp ci ay yedd weet gore wettaliku gore bu la mar naan mos a taxa naan petit je me rappelle la générosité sax ndekete lu ñuy def ci doomu aadama la man dama siisoon dama siisoon nit ku siis laa woon euh, bu toggee bu yàkkee des fois ñun buñ génnee mu jël lépp yàkk ko ñeneen ñu dëkkul ci kër gi ñoo koy lekk su ma ñëwee di kaas affaire jàppal bàyyi naa ngay jëlee doomu jàmbur yi di leen jox bàyyi say propre doom mu ne ma tu n'as rien compris li may def nii yëpp yéen a tax ma koy def lenn moom xam naa ko te gëm naa ko mooy du ngeen mësa a seen àdduna ndax euh, naa la wax tey benn mbir nga téye ko dama bëgg ci sa àdduna sa moroom yi ngay àndal yépp na nga fexe ba na sa njëriñ ëpp ci ñoom que ñoom seen njëriñ ëpp ci yow mm-hmm. mu ne ma na nga fexe ba lépp lu ñu am nga bàyyee leen ko te loo am na nga ko bokk ak ñoom ma ne ko mais bu boobaa ñoom dañuy avancer man du ma avancer mu ne ma déedéet mu ne ma xanaa xamuloo ni alaala bi laa xam du dugg àjjana mukk am yàlla jox la toog ci xoole mhm. donc cette cette phrase vraiment def ci man tawhid cette femme c'est voilà quoi mooy loolu <laughs> alors loolu moo lan moo nekk seen euh, dernière euh, discussion yéen ñaar parce que ci feebaram dama gis ne sonn nga ci dem nga dellusi siwaat demaat dellu siwaat ba xëy na balaa muy wàcc liggéey lan moo nekk seen dernière discussion yéen ñaar waaye suñu <laughs> suñu dernière discussion bi mu génnee juste bloc opératoire euh, bañ dugal ko réanimation ba mu ximmaliku ñu teg ko ci chariot bi ma koy pouse pour delloo ko chambre bi mu ñëwee ba ci chambre am ma jàppoo ko ak sama sœur bi bañ teg ko ci lalam j'étais en appel vidéo avec euh, ma fille aînée ki ma ko tuddee mm-hmm. moom la mujjee waxal moom la mujjee waxal Euh, bi mu paree ak moom appel vidéo bi kàddu yi la ma wax ndax xam nga ni kenn du la mus a yërëm ma ne ko cest à mu ne ma te say noon duñu mës a bëgg mu ne ma lenn kese laa lay dénkaat bul mësa a lu soxla doomu aadama yi lépp loo ci mën taxaw ci quelque temps ci la gëj a ci la duggaatee ci comment mhm. ba keroog ni muy génnee àdduna donc mu nekk une période très dure parce que dafa nekkoon koo xamante ni gàllaaj la ci man mhm. gàllaaj dëgg dëgg dëgg ci lu bari ci saayir ci baatin je me santé très fort quand je la voyais su ma toogaan Dakar ba yëf yi jaxasoo lu mu métti métti lu mu guddi guddi je prends ma voiture dem ba ci moom su ma ñëwee lenn kese laa koy lenn kese laa koy suñ nuyontee ba kii je me fu ma siggee xool suma yaay ci bët musul am toujours sëgg ci ci damay sëgg ci ay tànkam wala ci ay kiiwam su ma nee dénk naa la yàlla c'est comme si téléphone bu déchargé bañ chargé waat ko ba mu ñëw à cent pour donc da doon nekk loo xamante ni vraiment soo dajale woon kullu maa mën ci àdduna mm-hmm. dajale lépp ñu jël composant cangatak ñaan yi ñu am yëpp jox la ko ce mot là ou cette phrase là daf la daan motiver li mu doon def ci man. Mhm. je je pas je peux donc voilà yal yàlla xare ko. amiin yàlla yàlla xare ko ci aljana yi gën a kaw. alors euh, c'est c'est dafa nekk moment bu difficile boo xamante ne euh, kenn du ko miis parce que waajur moo moo moo mel noonu donc euh, ñoom ñëpp sunu waajur yi du ñu ngi leen di ñaana yal leen sunu borom xare aljana. alors bu ñu continuer waatee cette fois-ci. nga bañ a <laughs> am naa si difficile pour toi. waaw mais mooy loolu sant yàlla ça va aller. d'accord alors ci wàllu sa parcours ba léegi parce que mënuñu wax sa parcours te duñu wax ak ki nga xamante ne moom mooy sa waajur wu jigéen parce que c'est intimement lié alors nga nga continuer yaa ngi dem di daw di liggéeyi di jéem a jàng même si après xaw na impacter ci li nga xamante ne moom mooy say études mais à côté vous étiez jeune li nga xamante ne moom mooy révolte bi commencé na fees ci seen dënn mm. yow ak koo xamante ne da ngeen mus proche da ngeen mus ànd parce dama lay dégg des fois nga def yenn témoignage yi pour dire que ki nga xamante ne moom mooy euh, Thiat mm-hmm. Mm-hmm. faaw ma wan la ko balaa ñuy ñëw ci création seen groupe danse bi après rap bi mm. mais vous avez toujours eu une relation presque fusionnel comme des frères. waaw ouais. Euh, Tchad c'est un plus que frère c'est vraiment un plus que frère Tchad euh, au-delà de ce que les gens voient c'est quelqu'un boo xamante ni euh, lu bare bare bare bare bari Tchad moo ko def ci man ci wàllu àdduna saayir pas saayir mais ci li ñu nekk nii par exemple. Thiat tey jii nii euh, c'est quelqu'un boo xamante ni xaw ma nan laa ko mën a woowee et aussi autre chose mooy yaayu Thiat suma yaay la defoon magam ci koñ bi ci moom la daal ñëw di toog di waxtaan di jël conseil pour te dire que nii au même moment ñoom ñaar ñuy ñuy ñuy ñuy nekk ñuy nekk enceinte de nous deux elles avaient l'habitude de de de de de de de de de s'asseoir de parler de discuter. di waxtaan ñoom ñaar waxtaan ñoom ñaar. te boobu yéen ñaar juddoogu leen sax boobu ñu ngi ñu ëmb. Uh-huh. donc je peux dire que même la connexion a commencé depuis le ventre de nos mamans mu nekk loo xamante ni du du yëfu caaxaan bi ñu juddoo caat eh, le paradoxe mooy que ni te ba nii nii nii est-ce que xam nga ni caat man ak moom musuñu bokk li ñu bëgg à part. Euh, taxaw euh, maanaam euh, euh, liggéeyal yàlla wala jaamu yàlla par joxe sa bopp li ñuy wax le don de soi. mais sinon ay caractères complètement opposés la caat ba tey man moom bokkuñu fi ñuy fréquenté bokkuñu lu ñu bëgg genre oto yi ñuy dawal sax bokkuñu ko c'est-à-dire c'est c'est c'est c'est affaire bi doy waar quoi. groupe de danse bi sama grand frère yi ak ñoom Mapaate ñoo doon danse. man ak caat ñoo nekkoon ci staff bi ñoo newoon les managers affaire yooyu. kon yow daanoo daanoo wan fecce. non man dama daan imiter. comme xam nga da doon am partie imitation affaire yooyu ah, jàppal bàyyi. d'accord je me rappelle la première fois bi ñuy participer ba waroon a imiter Baaba Maal euh, bi ma imiter Baaba Maal ba pare gars yi dañ ne ñu doon compétiral dañ ne no gars yi dañoo dem jëli benn frère bu Baaba Maal ñëw indi ko fii quoi moo tax waa ji réussir affaire bi. tellement que aar dafa mus a nekk ci suma yaram mooy sanwunu baaba maal boobu je pense muy way ci ci napp say jee mi nani yooy mi nani sondani mani danake mi dayi manjunare bojo bono koli jama say sayge sayge sayge sayge sayge mi nani yo d'accord alafade njum donde ma binato burat saybade wariyade juma to wi to wi tin tay tangeje i bibe seykutanu mariabe tu vois mhm. ba pare ma mère adorait chanter su suma yaay dafa neexoon baat d'accord je me rappelle les meetings c'est elle qui chantait mais bu daan way vraiment tu coupais le souffle elle avait une voix bu rare bu triste euh, je me rappelle bi may gën a nekk booy euh, suñu génnaan man ak moom ba dellu si des fois ñu génn tawte moo tëdd ci luppam muy way way yoo xamante ni elle me berçait avec sa voix mélodique mhm. vraiment <laughs> sant yàlla quoi sant yàlla alors euh, ngeen nekk ci Euh, mais benn moment ngir évoluer mais mais yow mënoon nga woy mais le problème avec ñoom caat mooy il paraît ñoom dañ doon rap yow mun nga woy mm. ba pare yow dangay ngay xaw a prononcer ba pare sa làmmiñ xaw a tax <laughs> il paraît que groupe bi bi ñu commencé nanguwuñu la woon loolu loolu est-ce que dëgg la kilifa. waaye <laughs> bon dama nekk koo xamante ni dama tële ci fecc comme pas possible. Ouais. effectivement donc il fallait groupe te du ma nekk katu yére kese quoi bon tout au début maa doon fóot yére yi. <laughs> yére groupe bi après je me suis dit que non attends donc fóot yére c'est insuffisant. très bien donc parce que euh, euh, ànd dañu mës a gëm ànd ku nekk ak li nga mën ngay def loolu lañ mës a gëm. Mhm. ma attends il faut que am na lu nekk ci man et je le sens Euh, am naa tuuti aar ci suma yaram te damay fay foyantoo way xaaral bi ñu kiiyee nag ci la proposé gars yi ne leen maay def imitation bi gars yi ne ma non bàyyi ñu uti rek sa waay jàpp ci <laughs> may leen maa koy def ñu jox ma cassette bi may may tëju def ko challenge dama doon tëju di déglu affaire bi di jàpp paroles yi di topp di répéter mais ñoom ci seen bopp ils étaient surpris parce que dama leen ko nëbb ba le jour bi ñu woowee euh, euh, maintenant euh, l'imitateur de kër gi bi ma yéegee jël micro bi indi sama déguisement sol tengaa di affaire ñoom ci seen bopp ils étaient surpris ah depuis jour boobu la ci lañ xam ni j'ai ma place dans le groupe nga jóge ci faute commencé di yi. waaw maintenant nga imposé wu. waaw ma nekk ma nekk. membre entière <laughs> à part ma nekk kii a imité Youssou mooy xale yu réew mi. Mhm. guddee ma sa guddee ngir ñu mën a konto ma sa guddee on a imité ça on a imité pas mal d'artistes donc ci la loolu jógee voilà ah. quoi donc mu nekk une suite bi groupe de danse bi arrêté ci la ñu nag ne il faut que. ngeen def seen groupe. ñu non non euh, de créer le toog benn instant groupe de bi kiyee ñu xaw a stand-by nag mooy loolu quoi mais maak on continuait quand de se fréquenter ba bi grève UDES bi amee en 96 euh, mu nekk une grève qui trois mois Union nationale des élèves et étudiants Étudiant, ouais. du mhm. ci grève bi fi mu mujjee mhm. ça nous a parce que après les dirigeants avaient vendu le combat mm comme d'habitude fii ni ñuy def rek quoi man ak Tchad nag ñu toog ne plus jamais ça on va plus être des suivistes il faut que ñu bokk ci dootuñu nekk ay téléspectateurs wala ñuy toppe di seetaan vous allez être mais dañuy nekk des acteurs d'accord il faut qu'on s'implique sur la gestion de l'affaire publique alors Tchad ne ma boy mhm. il faut qu'on dénonce quoi mhm. ma ne ko dénoncer quoi mu ne ma ni muy doxee ma ne ko ni ñu koy dénoncer ma ne ko dañoo mën a créer parti politique wala mouvement mu ne ma non par une autre voie ma ne ko la par quelle voie mu ne ma booy nañ rap ma ne ko rap mu ne ma ma ne ko déjà man caat rap je comprends damay dégg rek ñu naan rap rap rap ça ne m'intéressait pas sérieusement ça ne m'intéressait pas du tout bi loolu jeexee man toujours maa ngi focus ci sumay yar xar yar ginaar defar ay beñee ay mbuudaake di ko jaayaat. waaw parce que dafa am lu la war seen kër. voilà te loolu mënu la wàcc. donc toujours man ci yooyu lay focus daw dem Sonacos. Mhm. bu ma demee kos nekk fa saisonnier ñu fay ma parce que dama amoon dama teel a nekk dama teel am charge. Mhm. donc je pouvais pas me permettre di taxawaal wala di caaxaan sérieusement wala di fo dama maanaam yàlla def ma teel a def xale mag parce que. bu ñuy wax ni diw kilifa la wala mag la mooy ay responsabilité gàllu ci mbàggam mm-hmm. donc voilà et yàlla dimbale ma aussi ma conscient ci loolu parce que je ne voulais pas aussi que mes sœurs dem di jaay seen bopp mm-hmm. je ne voulais pas aussi que mes petits frères nekk ay mendiants wala ay raté jàppal bàyyi donc il fallait quand même euh, la ceinture pour gérer loolu ci la ñu le groupe de rap ci la ma le luy rap après il m'a fait écouter Euh, mu ne euh, mu ne ma parce que li xew kaw Kaolack il faut ñu dénoncer ko. léegi lan la ban ban morceau la la njëkk a déglu woon ci rap. Euh, PBS. d'accord. ataaya mënuma ko bàyyi mën na ko cat toi ci parles de dénonciation nga bëgg ñu ñëw taxaw naan ay ataaya mënuma ko bàyyi wala ceebu jën neex na affaire yooyu mu ne ma non lii c'est la forme mais ça n'a rien à voir avec le fond ñii dañu choisir di def edutainment ñii di choisir di def entertainment ma ne ko lan mooy edutainment entertainment mm-hmm. te terme là mu expliquer ma bu ci nekk mooy ban alors on a choisi de faire dans l'entertainment mooy maanaam un rap conscient buy dénoncer du coup euh, ma ne ko mais attends mais comment après il m'a fait écouter Pifras de passage je salue Roumane quelqu'un boo xamante ni am naa ci moom respect lool parce que bokk na ci ñi tax ñi leen inspiré ma pas inspiré mais ma ma ma ma gëm la motivation de la dénonciation d'accord mais puis fois sax dafa am fu ñu ki yoon maa ngi koy déglu léegi seen benn morso li ma toog fii maa ko wax ba mu neex ma maa ko wax dañ doon cax ma ne ko mais caat ba tey dafa des quoi mu ne ma noo ñun dañuy def mu ne ma tamit ci biir dafa am euh, dafa am euh, hardcore am na rap gangster expliqué ma ne ko rap gangster moo ciy ban mu ne mooy bi nga xamante ni da ngay ñëw jaar ci digg bi amul censure amul segg amul da ngay ñëw jaar ci digg bi ma ne ko bii dañuy def mu ne ma mais nag <laughs> c'est mu ne ma c'est risqué de kaso mu ñu ciy xaar ay ñaf ñu ñu ciy xaar lu nekk ak ñu ciy xaar ma ne ko sa waay bu dee lool kese la ma ne ko n'est-ce pas euh, man suma àdduna yëpp man li ma ci gëm mooy Euh, don de soi maa ngi ko commencé ci sama biir famille. le don de soi mooy li ñuy woowee le suicide individuel pour la résurrection collective dans la vie da ngay bokk ci ñi nga xamante ni da joxe sa bopp saxax saxax pour le survie de la génération bii ñëw. parce que par exemple booy xool de foofu damay couper rek def benn parenthèse tey jii lu tardeel Afrique ak surtout Sénégal. mooy le sénégalais lim lay wax mooy njëriñ la nga fekke sama bopp ma la gënal mhm. gis nga ñaari wax yooyu pour man il faut vraiment et un défaitiste pour taxaw di ko wax il faut vraiment et égoïste mais égoïste quoi pour taxaw naan ay njëriñ la nga fekkee njëriñ kenn mënu ko fekke c'est impossible c'est impossible ñu xeex pour loo xamante ni après ñun ñoo koy lekk mënul ne parce que un combat c'est des années un combat peut même durer un siècle donc on peut pas on peut pas ñun ñëpp ku ci nekk xam nañu suñ dund dafa am fu mu yem mhm. tey jii li nekk di def nii une génération moo ko commencé beneen génération continuer ko beneen continuer ko ba ñun ñu jot mais ñun dañ ko war a continuer xam ni que ni le combat qu'on est en train de mener c'est pas pour nous mais plutôt pour nos enfants. d'accord un Sénégal boo xamante ni. Mhm. dañuy toog dootuñu maanaam di toog ci maanaam peut-être mën nañu fekk laa ñu décroché nag nekk ay màgget. Mhm. mais day nekk un Sénégal boo xamante ni de euh, le contraire mooy am dañuy gis le français. ou l'italien ou l'espagnol mu jóge foofu ñëw di jël gaal di ko jaral muy traverser moom. di ñëw fii mais pas sunu doom yi di jël gaal di dem di fekk ji. ñoom seen morom yi ñuy yi ñuy kii ji ëllëg. d'accord un Sénégal boo xamante ni. ñëpp a bokk ñëpp a koy liggéey ba mu nekk un Sénégal prospère. le combat c'est ça. alors euh, ci la ñu. ngeen soobu ci la ci la ñu ne nag dañuy créer groupe bi on va maintenir le nom mu ne ma léegi sax dañuy maintenir euh, turu kër gi bi bi ñu tuddoon rek. ma ne ko sa waay gars yi dinañu saboté de. Uh-huh. ma ne ko yow gars yi tudd ay Positive Black Soul ay Black Revolution ay affaire yooyu ñuy mu ne ma am na benn group bu tudd Daara mu ne ma et puis originalité def ci baax parce que rap da nga koy def ak say ak ak say réalité dara warul génn Sénégal comme ñun dañ ne dañuy représenter suñu régions dañuy représenter suñu pays ak suñu continent donc il faut d'abord commencer par la culture incarnée et wan nit ñi le face du monde que ni on est très fier de notre culture jël les noms jël l'accoutrement jël les styles jël voilà voilà voilà mu ne ma bu ñu tuddee kër gi comme ça yow nga tudd kilifa man ma tudd caat li ma ci gën a sawarloo nag comme xam na ni man dama bugg ay affaire de chef affaire de kii nii bi mu ma nee nga tudd kilifa nag ci laa ci gën a sawar <laughs> alors <laughs> c'est un piège <laughs> mais mais béyaaba rab bi naka ngeen ko assimiler moment boobu parce que parce que en fait rabu leen woon yow déjà xamoo ci woon dara euh, mais naka ngeen def pour pour pour pour commencer nag cette fois après après mu ne ma on va faire un pacte de sang parce que mën nañ dem ba ci digg bi nga bàyyi wala ma bàyyi ma ne ko lu tax nga xalaat loolu mu ne ma fi ñu jëm day am pression bu ñu commencé day am pression familiale man moom ak taaw. y avait taaw. Farba Farba. Mhm. ñu toog waxtaanee ko dem marché jënd popeline def pacte de sang à la vie à la mort. temps ah yooyu film bi doon am seen popeline mais bien sûr dagg seen loxo nii ku nekk toxal deret fekk mu tombé am na benn film bu doon daw à la RTS bu tuddoon pacte de sang donc ñu mu inspiré ñu tam ñu def pacte de sang mu nekk loo xamante ni aussi kenn gisul woon ñi lu mën a fay la c'est quelque chose qui pouvait générer des des des des, des sous sérieusement ah d'accord le rap au début euh, ñi ñu ci dugg ñëpp au début dugguñ ci woon par xaalis ça je te le dis par... ah ñun dugguñ ci woon pour xaalis très honnêtement d'accord parce voilà d'accord mais liñ naan liñ naan yàlla ci xarañteem mhm. yàlla ci xarañteem dem nañu par exemple yow maa ngi fàttaliku bi ñuy njëkk a jàppante ak Pendra bi ñu Pendra waree produire Pendra ne sama rek yéen ma produire leen perte xaalis la parce que vous n'allez pas vendre rab bi ngeen di def nit ñi bugguñ ko amul mhm. way amul lu meex seen musique dafa waw dugg na fii ñu xuloo ci loolu ba pare defiyee ko ne ko dugalal xaalis ci ñun dinañ la dinañ la wan loo xamante ni musuloo ko gis ñu nag Pendra ba convaincre Pendra mu produire suñu album nos condoléances en 2000 en 2000 en 2008 2008 d'accord non lii benn kii la rek ko pour wan la ni la ñun suñu rap dafa dem ba même les producteurs ne croyaient ne croyaient pas à nous les promoteurs et cetera et cetera kenn benn yoon boobu la ñu mës a produire te c'était une autoproduction avec Pendra mais suñu album yëpp ñoo ko produire suñu bopp. d'accord alors. Pendra mhm. défi bi ñu ko tegaloon challenge bi mooy que ni on va vendre lu kenn musta jaay même ci mbalax bi et on a réussi le challenge. et vous l'avez réussi. oui alors jour sorti album bi on a vendu plus de 1500 CD ci benn guddi. à Kaolack ouais. <laughs> plus de 1500 CD ci benn guddi parce que je me rappelle Pendra dañ ko ne woon première duplication defal 2500 albums mu ne 2500 albums. Mm-hmm. yéen nag booy da ngeen a ëppal. on va essayer avec 200 CD su doxee ñu ne ko tiireel 2500 albums du def une semaine ci marché bi. Euh, ci souvenir yi très rapidement balaa may commencer wan la li nga xamante ne moom mooy tuuti ñu boolewaal ci actualité bi parce que nous reste dix minutes okay. donc dañ koy def fast track euh, euh, dégg naa da ngeen doon enregistré ci benn rajo kan moo leen doon jox rajo bu ndaw boobu kii moo ñu ko doon jox suñu jabaru grand frère Nancy Dieng d'accord Nancy de passage maa koy nii moo leen doon abal benn rajo waaw moo ñu doon abal rajo biñ ko joxoon may gu njëkk xam nga temps yi temps njëkk rajo lañ doon joxe <laughs> <laughs> léegi mu abal leen rajo double cassette waaw mu abal ñu double cassette bi ci lañ doon su ñu amul à défaut de bu ñu amul 1500 pour dem ci Jibi Gueye fay pour ñu defal ñu maquette d'accord waaw noonu ngeen doon liggéeyee <laughs> alors ba am reconnaissance bi ah vous êtes vous êtes produit partout au Japon partout ci àdduna mm. euh, mais dafay tax ma euh, ma ma ñëwaat par rapport ak li nga xamante ne moo doon seen philosophie ak régime yi nga xamante ne traverse ngeen ko parce que au début lu bari comprendre ñu woon seen yaramu neen bi mm. mais yaramu neen bi après vous l'avez expliqué parce que simi nañ leen dóor nañ leen benn moment au lieu que ngeen takk sax montre fii mm. fii ngeen ko doon takk alors day tax ma wan la première image wu président bi ngeen eh, tombeel njool taali njool taali boo may wax en quelques secondes waaw seen relation ak Abdou Diouf mais surtout le régime dan nga may wax en quelques secondes Abdou Diouf euh, au fait nous notre combat était régional il fallait parce que PS dañu réussiroon leen ils avaient des barons dans toutes les régions du Sénégal mm-hmm. Ablaye Diack était le baron à Kaolack Mbaye Jacques Diop à Rufisque euh, boo demee Ziguinchor ndem si euh, comment Robert Sagna mm-hmm. donc PS ñoom loolu lañ réussiroon ñoom dañu amoon benn politique boo xamante ni le maire mm-hmm. ñëpp dañuy topp ci ginnaawam wala le maire ñoom dañuy fexe daal ba dëkk ba yëpp ak quatre-vingt pour cent quatre-vingt-dix pour cent au pouvoir la ñuy ne donc ils avaient affaire avec tous les dignitaires donc notre combat c'était d'abord de faire tomber Ablaye donc bi ko commencé mu nekk xeex bu yàgg 2016 96 ba 2000 du régime socialiste di Wade waaw première alternance am Abdou Diouf euh, on l'a empêché quand même de battre campagne en 2000 à Kaolack ngeen yàq meeting am dañu yàq meeting sànni fa ay xeer. d'accord gendarme yi jàpp ñu GMI yi. Uh-huh. dóor ñu dóor yu métti yu métti sax dóor yu yàgg te métti ñu topp marche bleue Ablaye Wade ba après sorti kawoon presque bay waaj a yegg euh, nu mu tuddati euh, presque bay waa euh, bay ba après ñu topp marche bleue bi di daw. alors ngeen amoon espoir ci moom. Mhm. Ablaye Ablaye Wade uh-huh. alors très rapidement. mu mel ni déception da ci am. waaye xam nga booy xool ñun euh, ñun on des alarmistes parce que liñ naan artiste yàlla da koy may muy gis lu ñëwagul soo tollul foofu ci artiste rek nekk loo artiste quoi di prédire si vous vous souvenez en deux en 2002 bi ñuy njëkk a génne suñ premier album parce que euh, que le premier qui devait sortir a été censuré. Mm-hmm. mu ngi waroon génn 99. donc on a sorti Kenn Bugul en 2002 sous Wade mais booy xool ci lañ defoon morso boobu ñu naan suñu moteuru gaal gi dafa paan kenn xamul ban garage yu politicien lañ koy euh, euh, lañ koy euh, réparer PS parti posonu Sénégal PDS parti pour diigal suñu gaal donc looloo nekkoon ci refrain bi mooy bi ñu naan cette année-ci les prix Nobel ont été remportés par un seul et président. waaw prix Nobel de lambar lambar yi prix Nobel. donc ñun bi ñuy bi ñuy wax sénégalais bi ñu leen di dànkaafu ne leen politiciens yi ngeen di gis d'accord Abdoulaye Wade malgré il s'est battu vraiment il s'est battu tey jii lu ñu am ci acquis démocratique à 80 pour cent Abdoulaye Wade liggéey na ci mais quand le changement escompté bi ñu doon xaar c'était pas. les gens du système te ñii c'était c'était euh, la classe politique euh, classique bii nii mhm. du ñii la Sénégal soxla pour dem d'accord ça on l'a toujours compris nous alors mais quand même il fallait faire un pas vers la démocratie c'était quoi am une première alternance au moins au moins alors ñuy dem ba avril 2011 mhm. ngeen taxawal un mouvement citoyen janvier 2011 plutôt muy Y'en a marre alors ci Y'en a boobu vous avez marqué les esprits ba ñu dund li nga xamante ne moom mooy deuxième alternance avec ki nga xamante ne moom mooy Macky mm. mais mu mel ni bis repetita c'est-à-dire yaakaar bu tas peut-être bi ngeen amoon fële moom ngeen amaat ci kii voilà waaw euh, man Macky Sall yaakaar bu tas bi ma am ci moom sérieusement du côté bilan matériel du côté du côté mais yaakaar bu tas bi ma am ci moom mooy musuma toog xalaat ni un sénégalais dina mës a xëy di teg askan wi métti di leen métital di leen naqaral di leen tooxal di comploter ci seen kaw di toppante ak ñoom xoolal tey jii par exemple li ñu am ci détenu politique ci lan ci makki Sall moo tey jii ne dafa singili benn parti bu fi nekk muy Pastef mhm. neexuñu ko il va tout faire pour les emprisonner quelque comme nit dof bi nga xamante ni Sénégal yëpp xam nañ ko ci comment il est ñu jël ko jàpp ko def na sept mois ci kaso bi ci loo xamante ni des militants de Macky Sall ont fait pire ou ont dit pire je le cas de Ba bi nga xamante ni dafa taxaw saaga toute une communauté toute une saaga yeeg yëpp wax lu ko neex ñu utal ko passeport diplomatique euh, rawale ko Canada je vais prendre le cas de Suzanne Ahmed Suzanne Camara bi taxaw ne dañu war a rey Ousmane ko je vais prendre le cas waa ji nga xamante ni li ta li bàyyi tey oustaz Assane sekk ci kaso bi waa jooju moo waa ji wax la même chose que bu Macky Sall bokkul élection dëkk bi dina tàkk oustaz Assane sekk ne bu Ousmane Sonko bokkul élection dëkk bi dina tàkk waa jooju mu ngi doxi soxlaam te sax il a été promis ci bu ngeen toppee euh, euh, kii nii ñàkkul ni il a été promis bu ngeen toppee yëf yi des maires waaw mu ngi ci la très bien kii moom mu nga ca kaso ba oustaz Assane Seck man li ma li ma bett ci Macky Sall mooy sérieusement musuma woon foog ni ñu dund ak un dictateur. pour yow c'est un dictateur. mus Macky Macky raw na dictateur Macky Sall raw na un dictateur El Malick Ndiaye bi ñu jël bërki bu dugal ko ci kaso bi parce que nee nañ dañoo dégg benn ojo nit ki def ojo bi génn ne leen man maa ko def teewul ñu siisu dictateur mooy ki nga xamante ni dama lay jàpp par force nga def ak nga ñàkk a def. indil ma preuve yu la neex dama lay jàpp dictateur mooy ki nga xamante ni day ñëw tooñ la ba pare jàpp la et c'est ce que Macky Sall est en train de faire bi ñuy jàpp jour bi ñuy bi ñuy mandat de dépôt les 17 personnes yi ñu jàppoon buntu kër Ousmane Sonko mais ce même jour ay militants Macky Sall dem nañ buntu palais ne yow dañ koy féliciter ci wax ji mu waxoon au moment où li kilifa di wax dugg ci kaso bi ay partisans Macky Sall ñu ngiy wax doublem ñu leen di promouvoir. alors ñuy doxi seen soxla. alors day day andi non vraiment moom mbetteel bi ma am ci moom mooy fogoon naa ni du ñu am koo xamante ni daf ñuy xëy di ñu tooxal suba ba ngoon jot. alors day tax ma andi ki nga xamante ne moom mooy la photo de Ousmane Sonko. Uh-huh. on a vu une certaine proximité ak euh, ak moom le leader de Pastef. Uh-huh. dafa tax ñu bari commencé douter ci li nga xamante ne peut-être Ndeye Ji Seex ngeen waroon parce que vous êtes un mouvement citoyen Ndeye Ji ngeen waroon taxawee. Uh-huh. mais en 2011 taxawee wuñ nday ji seex certes nday ji seex lañ taxawee en 2011 gis nga lii euh, c'est c'est c'est c'est c'est les mêmes c'est les mêmes euh, nu ñu koy waxatee reproche la xaw ma critique la xaw ma remarque la mais en 2011 2012 tout le monde disait que c'était Macky qui était derrière nous tey lan lañu nit ñi di wax yéen a fal Macky Sall ba léegi on on n'arrête pas les gens n'arrêtent pas de nous dire ça mais 2011 quand même reproché woon nañu on a on a même on a fait dafa amoon ñeneen ñu leen doon financé. waaw non après loolu feeñ na franchement après je pense feeñ na après gis nañ ni euh, dafa am ñoo xamante ni dañ leen doon financé ci M23 bi wallahi azim euh, wallahi azim laa la wax lu ma dul faral di def amul kenn ku mës a nekk suñ ginnaaw wala ku ñuy financé très honnêtement. c'est après 2012 c'est mhm. après 2012 après l'élection de Macky Sall ci lañ commencé liggéey ak ONG yi et eh, ci ay projet mais 2011 mhm. ba 2012 amul kenn ku mus a taxaw ne moo nekk suñ ginnaaw wala mooy yëkkati dërëmam di ko def ci ñun mais fi nag bon Sénégal la comment la candidature de Ousmane Sonko mais mais mais mais c'est une demande populaire Ousmane Sonko c'est le candidat du peuple du sumay wax du loo xamante ni maa ko def ci nit alors sa candidature c'est mooy di mooy di gën a normal mooy ki nga xamante ni moo gën a éligible de parmi tous les candidats yu ñuy wax. ci ban critère nga ko teg. critère bi ma ko teg mooy ki nga xamante ni tey jii amul lenn lu ko yoon toppee loo xamante ni crime la buy impacter sur les populations. am na délit bu ko topp quand même. délit ak crime bokkul. oui ça c'est vrai ak crime bokkul. te mhm. délit bi yow yaay sax ñoom ñoo créer un délit ah parce que jàpp nit ki. topp nit ki lënjatu nit ki mhm. ba yoo nga ne nit ki dafa dugg fenn bi mu duggoo foon fenn doon fa maase wu dafa siif ngeen koy toppee siif di ko toppee siif ba xëy ne ko sax ndekete siif gi ñu la doon toppee defoo ci dara menace de mort bi defoo ci dara waaye dañ lay toppee leneen loo xamante ni bokkul ci sa kii mooy da ngaa def détournement de de de jeunesse c'est-à-dire il faut que jot na tous les Sénégalais am le courage de dire à sa Sall et cette justice la vérité wax ji foofu la ne ah. problème c'est Ousmane Sonko deful lenn lu dul bëgg Sénégal ak di topp li nga xamante ni moom la sénégalais yi bëgg ak di leen jaay li li sénégalais yi bëgg c'est aujourd'hui loolu moo ko may li mu am mais du kilifa bu taxaw ne bëgg leen Ousmane Sonko du keneen ku taxaw man musuma taxaw ne voté leen Ousmane Sonko wala bëgg leen Ousmane Sonko wala topp leen ko musuma ko def mais sénégalais yi ñoom ñoo taxaw ne la moom kese la ñuy topp dégluwuñ kenn lijjantiwuñu kenn toppuñu kenn Ousmane Sonko la ñuy topp te loolu moo ko waral. Ousmane Sonko moo leen moo leen jaay un projet boo xamante ni c'est le de tout tout un Sénégalais nañu waxante dëgg. yow gëm nga ni dina mën a samp na tam 2024. dégg loolu ma la wax euh, dafa mel ni tey jii nga màggal Touba gi am na te nag amu ci amu ci. xam nga loolu wala gàmmu gi amul nag amul xar. amul berndeel amul berndeel cest à Sonko mooy nag ci màggal di xar ci màggal. donc on peut pas faire un màggal Touba sans rey nag ak rey xar. c'est impossible. alors très rapidement ñu ñëw si yow quelques secondes après aussi bu am na photo yi bu ma la bëgg a wan la la dernière photo. Mhm. Euh, l'expérience que tu as vécue euh, en deux mille vingt et un. Mhm. nga ñàkk sa waajur après nga am problème. Mhm. parce que gis nañ li nga xamante ne moo doon sa position. nga jékki-jékki yoon topp la. bi nga ci génnee. duggu kaso parce que mhm. dugg kaso moom miin nga ko ah, mais mais bële ci ci beneen contexte la bii c'est c'est complètement différent effectivement ban jàngat ban leçon nga ci tirer bon leçon bi ma ci tirer rek mooy comme li nga wax quoi parce que bref on va expliquer un victime qui se retrouve en prison un victime qui se retrouve en prison je suis avec un ami dans une voiture loolu mooy li nit ñi gis mais dafa am lu ko jiitu peut-être euh, un jour dinaa toog ma wax ak sénégalais yëpp lan moo ko jiitu mais c'est tout tout un processus te moo nekk ci procès verbal yi bref ñu ma defee biñ ma bàyyee ba léegi nee nañ ni mën na am affaire bi am procès mais je le dis ici je réclame ce procès parce que j'en ai besoin pour au moins ñoom ñu wax sénégalais yi ñoom dañuy fen ci lépp lu ñuy ne suba ba ngoon jot ay fen la ay taqalaate ay sosolaate la alors toog nañ mu ne ma dama buggoon nga jàppale ma maanaam li nit ñi gis quoi dama bëggoon nga jàppale ma parce que sama doom dafa war a faju ci ma ne ko ci lu ma lay jàppale mooy que tu me trouves un rendez-vous ci consulat bi vous avez des relations sa ça loolu mooy waxtaan bi mm-hmm. li Sénégalais y gis aussi mooy que ni j'ai pris mon téléphone j'ai commencé à appeler des gens yoo xamante ni yaakaar naa dinañ ma mun a jox numéro consul bi vidéo yi nit ñi gis nañ ko ndekete li ñu nekk di wax yëpp mu ngi filmer loolu lan la ci jublu mu nekk film bu gudd boo xamante ni ñu jël manipuler dagg fii dugal fii tilimal xelu sénégalais yi fii mais anyway tu sais aujourd'hui ce qui m'a euh, redonné la force de revenir sur la scène parce que beaucoup pensaient que damay toog après way parce que effectivement c'est c'est une période boo xamante ni moo ma gën a métti parce que lu ma gën a bañ ci suma àdduna lañ ma def mooy ay ay woyi waa ji dafa nekkoon ci lu setul ak loolu mais billaahi wallaahi wal kitaabi yàlla naa nekk ki gën a yées ki sénégalais yi musuma nekk ci loo xamante ni lu salte la ci wàllu yooyu je suis gravement mais innocent je n'avais absolument mais rien compris ndekete ñoom monté nañ li ñuy monté kooku noonu ma toogal ci oto bi un ami boo xamante ni bi ñuy former groupe kër gi il était présent parce qu'il était présent presque vingt cinq ans. waay ma wax la leneen lu gën a grave une autre peut-être bés bu ñu yeggee dinaa ko wax ndekete keneen ki mu ko tëggal c'est un ami d'enfance koo xamante ni moom bi ma amee huit ans mu ngi ànd ak man lii mooy Sénégal ndekete ñaar ñi nga xamante ni ñoom laa defandool sama enfance ñii ñoo tëgg loolu. topp nañ ko xam nañ fi mu jógee lépp lan la te bés buñ ca yeggee dinañ ko wax Sénégal yëpp dinañ xam ko kenn ki moom. turam sax son nom est connu son nom est connu mais je veux pas même je veux pas en parler pour le moment donc nii la fi demee mais mes interlocuteurs c'est les Sénégalais cette histoire-là c'est une histoire boo xamante ni lu ne nii la demee ni ma expliqué woote naa j'ai pas pu avoir un rendez-vous loolu la nit ñi gis ci vidéo yi on a parlé certes il m'a donné des passeports <laughs> am na wax bu ko jiitu ba tax mu jox ma ay passeports il m'a donné de l'argent je pense que ni sur cet argent j'ai expliqué mais ils ont manipulé xaalis boobu lu ma jox lu ma doon fay la ci oto buñ doon dil man ak moom jël nañ wax nañ visa fii wax nañ oto fële jël nañ joxante nañ fay fii euh, kii nañ fii ñu jël collé def ay rapprochement fexe ba collé des images pour mu mel ni man dama nekk ci businessum njaayum visa te ma wax la lenn gis nga njaayum visa je le dis ici ouais. je le dis ici Adja ouais. njaayum visa billaahi wallaahi wal kitaabi su ma amoon possibilité def ko dama koy def parce que c'est légal. mais des am am na ay artistes yu koy def non ka li ma la wax. yéen du ngeen ko def. xew na Sénégal ba xew xewi musuñu ko def. billaahi wallaahi wal kitaabi c'est-à-dire man kenn jaraluma yenn yi mais tey ji peut-être dafa nekk une émission spéciale. Mhm. bu bokk teg yenn émission yi. musuñu ko def musuñ ci bokk. ma wax leneen sénégalais yi njaayum visa bi muy xew dëgg ba rappeurs yi doon ko doon def dañ ko doon sax tiitaroo wa parce que dafa nekkoon loo xamante ni il faut nga am représentativité pour mën ko def way li gars yi foog c'est pas un truc illégal boo xamante ni way dugg na fii lu légal la les visas il faut que sénégalais yi xam ni que ni c'est pas l'état du Sénégal qui donne les visas consulat bi moo koy. très bien da ngay bëgg a dem Espagne le consul nga déposer ay papier ñu xool ko ne ah kii jar na may visa parce que lim ñu euh, lim ñu wax ni loolu lay defe ci suñu dëkk luy dugal xaalis la luy luy luy euh, dafa dafa ñaan pour vacance vacances day dugal xaalis dafa ñaan pour touriste touriste day dugal xaalis dafa ñaan pour dem def ay événement événement day dugal xaalis donc ñoom ñooy jugé may la suñ la mayee nag yow Adja Biteye ne dafa bëgg a dem nga boole ko ci sa groupe wala ci sa orchestre comme ni ko yeneen musiciens yëpp nag commencé ko ci bi ci kaw ba ci bi ci ndaw di defee boole ko ci sa orchestre présenté ko comme benn fecckat wala benn tëggkatu sabar yaay comprendre mu dugg ñu ñu ñu boole ko may ko ci visa bi ajaa bi tey jox la benn 3 millions wala benn 3 millions 500 lii mooy njaayum visa bi ñuy wax ah lii mooy mais yow c'était pas mais ça ça n'avait rien à voir parce que moom mais man am mu ah, waxtaanee ak papale man kese nee na yow boo nangu woon wax rek moom après du du def déballage. boo nag woon wax lan. que c'était par rapport ak visa yi. gis nga sept ans foiré wala mbaam xàll boobu gis nga dama lay wax lu amul seede baaxul dañu nekk ci une émission espéciale le bañ naa ko ba bu ma la indilee numéro kenn mhm. euh. Thierno Diallo. déedéet xaaral rek ma walla loo liir nii. Pierre. lan. dëkkati na. nga lan moo def tax ma def Pierre dikkati na. Hmm. parce que le gars dafay am habitude di disparaître et di réapparaître. temps yi dafa dellu si non attends numéro bii nii mu ma commencé contacter le 11 mai 2021. Mmh. tout ce que tu vois c'est des appels manqués tout ce que tu vois. parce que voilà lii lan la ay oto yow yaa gis ay oto yu ñu envoyante donc c' clair que xam nga gis nga lu lu mais yii yëpp buñ ca yeggee ça c' le prix qu'il m'avait proposé pour la Mercedes bii nii prix bii la ma ci proposé ma ne ko mënul jar 16 millions mm-hmm. ci la bàyyee Mercedes boobu dugg ci Veloster et cetera et cetera mais euh, ñi war a xam ne xam nga lu tax ma def ci dikkati na quand je te montre ce li ma am ci ay numéro parce que saa bu de réapparaît euh, bu bu euh, bu apparaître raté dafay ñëw avec un autre numéro mais daf ma naan maa ngi conservé bële ba léegi dama ko taalu jarul nga koy effacé est-ce que tu comprends. Mhm. lii lan la mo euh, Thier Thier 2017 Thier Babaña revenant. Mhm. Thier louche. Mhm. parce que benn instant dañ ko doon tooy naan ko booy da nga Tigo et donc Thier mii nii surtout man musuma seq ak moom sax ay business très honnêtement benn yoon bi ñu mës a seq business ci affaire u karo woon mu ne ma dafa am conteneur karo yi muy wàcceeg affaire yu jàppal bàyyi naa ko abal xaalis tele laa nekk ah toujours gardé ce chèque ma abal ko xaalis xaw ma ndax da doon dëgg la ou mu dem lijjanti il m'avait remis un chèque bi ma demee di ko fayeeku ji c'est-à-dire gis nga yu bëree bëree ma nekk chèque sans provision mais bien sûr heureusement que waa banque bi xam ma dama del moytu yi ñu lay jox ay chèques yi nii ma ne ko man on me l'a juste donné comme ça et je suis venu pour retirer ñu ne xam nañ bu doon keneen la dinañ topp peut-être benn enquête wala affaire mais xam nañ li muy yow la moo tax ñu lay expliquer da ngeen am tour day leen di moytu sax ay chèque ak affaire yooyu parce que ñëpp ci j'ai été prévenu depuis mais bon je me dis que ni voilà après ci laa ko sëfal ko li nga ma def nag ne ma noo booy yow da nga ëppal ne woon naa la bàyyil ma approvisionné compte bi affaire yu jàppal bàyyil <laughs> ma bàyyi mu jàll xaalis boobu la touché guma ko et c'est une somme de 3 millions chèque bi maa ngi ko gardé et malgré ça siq ak moom leneen teeyul woon sa xel kilifa balaa ñu de sujet euh, très honnêtement bi muy waxtaan ak man ci affaire visa yi aw ma benn yoon arrière pensée parce que su ma amoon arrière pensée sérieusement mais li lay wàññi man ma ci luy ma ci deal mais en toute naturelle gis nga ma ma téye suma téléphone. on parlait de tout. on parlait de tout de ay sax ay gel ak affaire yooyu parce que voilà quoi man néew maanaam damay sant yàlla quoi. damay sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax parce que ki ko ko ki mu ci nekkaloon copain bi ma la wax. Hmm. mais li mu ko njëkkoon wax mooy na ma sëf drogue. mu ne ko non drogue day graaw bi ñuy teg seen deal daf ko ne na ma sëf mu ne ko non drogue day graaw bàyyi noonu rek nañ xool nuñ fexee ba am waxtaan discussion ak moom ci affaire visa comme ça ñun ñu ne sa waaye dafa nekk ci dilum jaay visa. et je dis encore au Sénégalais que dilum jaay visa. su fekkoonte ni lu ma bëgg a dugg la dama ciy dugg ndax c'est quelque chose de légal. d'accord mais jaayuma visa musuma jaay visa xawma nu ñuy jaayee visa. c'est autre chose mooy que ni. Mhm. musuñu voyage ba man sax ma lijjanti les papiers soit c'est Tchad moo koy lijjanti. wala Gadiaga suñu manager seen manager xaw ma sax mi ñuy dajalee ay papiers pour dem déposer ji alors très rapidement uh-huh. dama lay wan beneen image boo xamante ne dama ko gis sa page Facebook euh, il y a quelques jours uh-huh. dañu gis Simon mu ñëw reversé wu ci la promotion du Made Sénégal. yow mu mel ne cette fois-ci sa wàllu activisme da nga gis ne. Mm. peut-être li ñu koy defee mooy nga gën a jege askan wi. c'est vrai nekk ci plateau yi baax na. nekk place de l'obélisque baax na. Mm. dénoncer baax na. Mm. mais gën a ñëw fekk sénégalais ci li ñuy def. nga fekk si leen fi. dafa mel ne loolu peut-être moom moo gën a am impact. mu nekk peut-être beneen maturité aussi bu ñu gis ci yow. Euh, fi la. fii Latmingué la sama ay tool la kooku may waxal noonu Baba Samba maa ngi koy bégee di ko nuyu de passage moom mooy sama surga mu nekk koo xamante ni nit ku jub nit ku baax nit koo xamante ni sa fait cinq ans ñu ngi bay man ak moom mais toujours damay am satisfaction à deux cent cent donc lii c'est pour montrer aussi à la jeunesse que ni euh, l'agriculture c'est pour les nobles. D'accord. Euh, l'agriculture et mhm. l'élevage. Mmh. c'est des c'est c'est c'est dafa nekk loo xamante ni euh, boo fekkee amuloo métier comme nekkoo mécanicien maanaam ouvrier wala sa jàng demul ba am fu mu yegg lii nekk na loo xamante ni moo gën tappale moo gën wuruj moo gën tàllal loxo moo du moroom man tey sérieusement euh, su ma su ma doon choisiraat pour lu may doon mais damay nekk un vrai agriculteur un vrai paysan. d'accord ak sàmm. ak sàmm alors dama wan deux photos bi. waaye kii c'est ma kii kan la. kii c'est ma femme euh, c'est je l'aime kii moom ma njëkk jox bonheur li ñuy wax bonheur dëgg. Mhm. mooy euh, la première fois bi ngay uuf loo xamante ni mu leer na li lii ci yow la soqi ko donc kii elle représente tout pour moi donc euh, maa ngi koy rendre hommage parce que c'est pas facile yombul nga nekk ak ku mel ni man ci lu bëree bari nag je suis invivable sérieusement ah parce que dégg naa da nga gaaw a mer. non je suis invivable mais malgré tout ça elle est là depuis 2010 tabax fakàlla macha allah yu bari xew na mais teewul tey puusul taasul tey la ma gën a soutenir tey la ma gën a jàppale tey la ma gën a toppatoo donc may profité ci occasion bi di ko rendre hommage bu baax a baax a baax a baax. d'accord <laughs> big respect. big respect à madame Seck alors la dernière photo. mooy sa sa bébé. sa sa sa sa turandoo mon fils aîné <laughs> Mouhamad Fadilou Karim. mon fils aîné. dama la gis aussi dama ciy waale juste après ce événement yi bi nga jógee fi nga xamante ne moom mooy dans les liens de la détention dem nga umra. ma gis la aussi euh, nga nekk fi nga xamante ne moom mooy Makhama Ibrahima. di gis naa la aussi des fois ay photo ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. sa guide religieux. d'un autre côté on parle d'un kilifa ki est très très religieux. da nga koy boolewaale ak ak sa turandoo Serigne rek. très rapidement quelques secondes. waaw ñu ngi ñu ngi ciy góorlu ñu ngi ciy sant yàlla parce que dañ ci tàggat surtout Kaolack dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu spécial xam nga man yàlla daf ma dimbali ma nekk taalibe sëriñ Touba. Mhm. sama rapport ak sëriñ Touba mooy Serigne Touba moo uuf suma papa tuddee ko boppam donc li ma am ci Serigne Touba dafa rëy dafa bëri cër la. ba pare ñu dëkk Kaolack mu nekk une autre chance mooy ñu am Cheikh Ibrahim Niass Serigne Touba ne bu doon siwaat ci àdduna Saalum Saalum lay doon aussi donc sérieusement ñu nekk dëkk boo xamante ni c'est une ville très religieuse tey jii si y une bonne politique de la municipalité tey Kaolack waxatuñ ko parce que Kaolack ngay ñëw gis Kaneen gis Niassène mhm. gis Medina Baye gis Pencum Serigne Bassirou gis et cetera et cetera donc ñu amoon aussi benn oncle Cheikh Touba yàlla na ko yàlla yërëm. mu teel ñu tàggat ci jaamu yàlla zikr. man may man est-ce que xam nga ni tarbiya naa dox naa sur. Ah, ba pare yàlla daf ma dimbali ma nekk un murid boo xamante ni euh, euh, mu euh, taalibe ñëpp laa tey jii Medina Baye laa gën a bokk sëñ Habib Sy tey jii nii mën naa ne kooku sama sëriñ la. Mhm. comme ni sëñ Abdou Karim Mbacke nekkee suma sëriñ sëñ Habib Sy bu da baax noonu la nekkee suma sëriñ boo demee Laayeen que tamit noonu Cenaba mhm. sëñ màgget Seck bi nga xamante ni kilifa la ca kër ga mu euh, nekk rakku xalif bi waa ba gëmewuñu ma fii lañu ñu ma teg donc maa ngi sant yàlla ci côté boobu parce que dañu bëgg course dañu bëgg naafila dañu bëgg <laughs> dañ bëgg jaamu yàlla daal ñu ngi ciy góorgóorlu nag. bu baax waaw. merci beaucoup Kilifeu en tout cas ça un plaisir de vous recevoir. sur non, ce plateau kaddu gu mujj gi lan lay nekk. le plaisir est partagé vraiment Adja di wax ni que maa ngi lay souhaiter vraiment un grand succès. merci beaucoup ci sa format émission bi parce que c'est quelque chose boo xamante ni euh, am na bu ma ci doon def mais c'est du genre. Mm-hmm. maa ngi ko tuddee woon xar kanam. waaye xar kanam gis naa la nga def ci ak sa neex voilà c'est vrai mooy wane euh, wane euh, la personne publique ci beneen facette mhm. dëgg-dëgg qui est la personne parce que lii dafa baax sénégalais yi di xam ni au-delà de parce que dafa am personne personnage personnalité au-delà de li ñuy incarner wala casquette bi ñuy sol nous sommes des êtres humains des personnes yoo xam dañu am jabar dañu am diine dañu am métier dañu am ay passion dañu am ay phobie am ay hobby voilà quoi nous sommes des êtres humains normaux dañuy demlante dañuy fekkalante on comme les gens mm-hmm. donc ñu bàyyi xel ñoom ci loolu dañu am doom am yaay am ay ñu ñu bëgg ñu bàyyi bàyyi loo askan wi xel ci ku ci nekk balaa ngaa taxaw di wax dara ci sànneex ci lu bon wala di ko wax ci Jojo euh, euh, euh, wala ñoom laa mujjee gis démb moo tax ma retenir seen kii <laughs> wala Wally Seck uh-huh. jël ko wala Ousmane Sonko wala même sax Macky Sall jël leen nga def leen à la place de tes propres frères ou de tes propres sœurs uh-huh. ou de tes enfants uh-huh. et cetera et cetera nañu bàyyi sama dernière kàddu mooy wax ju ñaaw sénégalais bëgg nañ wax ju ñaaw sénégalais mën nañ sosalaate sénégalais mën nañ yàq dara sénégalais boo la yàlla wul nga am un esprit fort ils vont te de par ay wax yu bon ay wax yu ñaaw ay sos ay créer ay fen ay yàq donc vraiment nañu góorgóorlu ci loolu lii daal mooy suñu cat te yàlla ñu ko yàlla dindil ba sénégalais bi am l'esprit positif bàyyi leen xeebaa teeg sosalaa teeg yàq derek seen yu bon yeeg yi ngeen di bind ci internet yeeg nang ciy xool koo xamante ni làqat ci profilam bindal la lu ko neex soo demee yaa gën sax baayam ak ndeyam <laughs> walaay la doy na waar en tout cas merci ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau merci à l'équipe may jano ak Issa Papis Dem Kébé Goro ci montage bi donc on vous donne rendez-vous vendredi prochain même heure même chaîne ce sera nag spécial Tamxarit ñu ñaan yàlla yàlla nañu ci yegg si jàmm te lépp nag aussi luñ ci jàmm na nañu ko sunu borom nangu jërë ngeen jër